Saale si moom waxtu wu waxtu wu ne rek euh, teew fi man xaal ci man noonu rek laa ko mën euh, wax ci moom waaye euh, suñu borom mi nga xam ne mu def kenn ku ci ne karaama la karaama karaama karaama boppam la ci sëriñ bi loolu moo tax nag Cheikh Saalihu kenn la ci ñoom ku neexu la mel ku doy war la waaye li ci gàttal rek nitu yàlla la ñi mu ko bokkee ñu mu ko bokkal it taalibe Sëriñ Tuubaa la muy ku jeex takk ci Sëriñ Tuubaa ca la la Sëriñ lay lay Sëriñ Tuubaa ci wàll yépp ni ma déggee Cheikh Salif mu ko wax ci sama làmmiñ sant naa yàlla ci moom bu baax a baax a baax ku doy nit ku baax wuyu turam lool saalex mooy ku baax mm-hmm. mooy lu baax mu wuyu turam ba mu jeex tàkk baatam boobu sax am na béykat yu ma ci defoon waaye xam naa ko fàtte. te it mi ngi ci biir kay bu neex daal te te seet. waaye defoon naa ci moom ay béyit yu fa tabaarakallaahu junj naa ci la ma xam ci moom. Mm-hmm. waaye rek gàttal bi rek mooy loolu. ku yu ku wuyu baax ci yi àll yépp baax gi ñu soxla fii baax gi ñu soxla ëllëg mm-hmm. lépp la boole. jëfe ko nag ba mu jeex takk ci pas-pasam bu rëy ba ci yitteem ju rëy ja ci bëgg lu baax nga ci kersam gu gu matale ga ci dëddoom gu rëy ga nag xam ni moom lañ koy ràññee sëñ Saliou lañ ko mën a ràññee te adduna bala nga tey mën a mucc dëgg da koy dëddu moom nag daf koo dëddu ba mu jógee ba fi ñu ko noppee gis ku dëddu adduna la ku jublu boromam la sëriñ tubaa yëngu ci sëriñ tubaa mooy la ko neex sëriñ tubaa moo ko mooy la ko saf doxinu sëriñ tubaa mooy la ko saf moom la dund mën nañ ko noppee gis ñu wàccee liggéey mën maa wax ci moom. waaye maa ngi fi maa ngi ñëw sax. nekk ku sëriñ Saliou bu nekk nitu yàlla. waxee na nu waatu na. bitig biti loolu diggam ak Cheikh Abdallah Fahmi mandarga la ci. moom yax naa ko xam nekk na feeg sëñ Saliou fukki fukki at ak juróom yaxasoo moom ci biir sëñ Saliou def ko wéttalam loolu man boobu xaw ma ko sax nekk jiir bi mu nekk lépp xaw ma gannaaw bu sëñ bu sax Saliou demee la la dem yàlla def euh, euh, deux mille lan kañ dinañuy waxtaan dahabti la baris min huna ila baas 2010 في في في في اي عام تلاقينا انا انا وانت 2012 ci atum 2012 bi ñu weesu yàlla dafa dogaloon ma doon lémtu ci yaram bi ci rendi bu ñu fa bi ma demee Paris am fay fan moom mi dégg ma daal di may seet si keroog bi ma seet see rek lanu yàlla boole. dafa wax ne li mu dund li mu gis na ko ci man. wax nañu it day daal di def jaayanteem. Mm. sama diggante moom ci yoon ci yoon bi. Mm. gannaaw sëñ boole. waaye li ma wax ne màndarga la ci eh, nekk gu seex saara sax nekk nitu yàlla dëgg moom mi màndarga. moom dafa am tawfiq yàlla yàlla ko taw yàlla ko mooy tawfiq ndax yàlla dimbali ko ba gëstu na diine ba am ci lu wér yàlla boole ko sëriñ tubaa mu bëgg sa tubaa faf ñu wommal ko ba teg ko ci loxo sa la lam bëggoon doon ko gëstu lépp ci diineek ci sëriñ tubaa lépp yàlla woon ko nekk moom ba niñ ko noppee gis mu jaaxle gërëm dem moom Tunis yi la waa Tunis la ñi si gën a kiimaane euh, Tunis réew mu baax la fatu la réew mu lislaam la waaye am na yu ndog ndax bi euh, fii colonialisme bi duggee ci France ñi colonialisme baaxoo lam fekk ci réew mi lépp ba koy so bëgg soppi def ko muy doxinu boppam melo boppam loolu nag Tunis dañ ci am nattu dañ ci am dogu daanaka daanaka ay tubaab la julli dëgg la naam ba tey julli la waaye nag tubaab jikko doxinu tubaab doon la ko mu soqi koo ñëw yàlla loolu karaama sëriñ rek la yàlla wan ko sëriñ ci loo xam ne kenn xamul loolu mi nga xam ne moom mu ko neex rek moom moom tëliwul dara nam ma def rek def ko loolu moo ko wommat ba mu agsi ba dugal ko ci loxo sëriñ Cheikh Saliou la mu doon yëg la mu doon wut la mu doon gëstu la mu bëggoon lépp ci nitu yàlla mu fekk ko ci Seex Saaliw Seex nekk moom nag loolu moom kenn juróom loolu dem eh, eh, bi ma demee demee dus noonu mu dégg ma ñëw fa ma gisee rek ma nit foofa laa daal di amee yëqin ci moom moom it mu wax ne jaax lépp jaaxle gépp jeex na ndax du ma gis daf mel ni dafa gis sëñ Saliou loolu moo ñu boole loolu nag doy na mandar doy na mandar ci sëñ Saliou man mun mu cee wax waaye loolu doy na mandar ci sëñ sëñ ndax sëñ Saliou moom kenn ci karaamaati eh, gi eh, faam mi feeñ ci moom jëm ci sëriñ Tuubaa loolu it karaamaam la moom loolu loolu rek la. moo tax nag sax maa ngi doon am ay xalaat maa ngi am ay xalaat ci moom ndax ginnaaw alhamdulilah euh, ñi nga xam ne ñooy intellectuels yi ñoom tubaab la ñuy jàng français la jàng te ay taalibe ngi ci yoo xam ne boo sañoon ñu a xam Sëriñ Tuubaa loolu tax boo sañoon euh, maa ngi doon xalaat sax ñu defal ko mu def benn muhaadara maanaam boo sañoon sax réew ñëpp la koy wax waxtu nit jamono yu ne. moo sañ loolu itam day génn réew mi taalibe yi yi nekk ci bitim réew muy dem ci ñoom ndax noonu ñooñu foofu ñooñu itam fekk ba tey eh, fa tabarakallah ay intellectuel lañu xam ne eh, dana mën a wax ak ñoom ci sëriñ bi te ñoom duñ ma dëgg la eh, tawfeex fa réy la am ci bëgg sëriñ bi ba ñeex takk waaye nag sëriñ bi loo ko gën a xam gën ko bëgg te moom mën na leen dolli ci sëriñ bi moom mooy Abdallah Fall yéene ju ci kaw loolu yàlla ubbil nu ci buntu ba mën a jot ci taalibe yi rawatina intellectuel yi ñi nga xam ne ñoo jàng dañu mën a xam-xam nañu ba mën a waxtaan ak ñoom ñu gën a mën a dolli bu sëriñ bi loolu loolu koy xalaat maa ngi koy jox wax naa sax baat ba noppi sax seen Ndakaaru bëgg moom mu def foo conférence tàmbali ko dafa mel ni télévision bi ñu ngi am yéene ci dalal ko. Mm-hmm. conférence bu euh, waxtaan wu yaatu woo xam ne. day daj àdduna bi ñu lëkkale ko am. loolu bokk na ci samay mébét. bokk na ci li ma gën a li ma gën a ma gënal. ma bëgg rek moo di taalibe yi gën a gën a xam sëñ bi gën a dolliku sëñ bi te moom euh, alhamdulilah am na tawfeex lu nit di am na ci sëñ Tuubaa am na ko euh, ba noppi am na xam-xam. Mm-hmm. gëstu na diine ba xam diine mooy lan mm-hmm. xamee na it li li li ñi ñi ñi ñi borom borom ñi nga xam ne euh, lislaam dafa bari ay ay ay ay ay xeeti passif mm-hmm. bokkul mm-hmm. dafa bari lool mm-hmm. waaye nag passif bi ci gën a wér mooy benn mënu ci gën a wér passif Sëriñ Tuubaa dama bëgg dama maan war a maan yem foofu rek waaye amul benn passif biñ noppee gis sangu bi néefe sidna Muhammad bañ ko noppee gis ba léegi kenn koo xam ne ku wéree ni Pastef ni Sëriñ Tuubaa amul moom nag yàlla gindi na ko ci xàmmee ne Pastef bi yàlla tawféexal na ko dañ da ko tawféex ci Pastef Sëriñ Tuubaa loolu nag moom la mébatoon euh, ginnaaw moom intellectuel yi ñu jàng dañu jàng français te lii boroomi xam-xam ku mel ni moom moo leen mën a gën a xamal sëñ bi moo leen ci mën a gën a dolli jot loolu moo tax ma loolu kon loolu loolu télévision ñu bëgg a def defaluñ ko kenn man lañ ko defal man ne defaluñ ma dara sëñ Tuubaa rek ko defal alhamdulilah alhamdulilah ma xam naa ñuy sant ginnaaw boo yëkkatee ay ci ñaan yi ñu fas yéene ko ci gaaw bi rek mhm. soññi ci ci daara alxuraan waaw waaw waaw moom sax Saalum moom wax dëgg yàlla fa tabarakallah sax Saalum moom wax dëgg yàlla fa tabarakallah ñi xalaat loolu def nañ lu baax def nañ jëf def jëf jëf jëf def nañ lu baax loo xam ne daañ ko defal ak bëggam te te itam te itam waaw loolu tax mooy li ci gën a mooy mooy li gën a gàtt daañu ko defal ak bëggam ndax ci loolu loolu lu lu mu fonkoon la jàngal xuraan jàng xasida xasida moom kenn mun ko gën a bëgg aada woon na ko defe naa jàng yëkkati moom xëy na man ne ne mu Masàmba moo ci jiitu woon tax mu xam ci lu ko naa ne moo jiitu woon ci yëkkati ci jàng xasida nii ñu koy jànge loolu yaakaar naa ne kenn ëpp ëpp ci yitte Cheikh Saliou moom da ko boo da ko jiitaloon ci yitteem jàng xasida nii ay daanaka dong yi da ko ñetti xaaj la daa doon xaaj bu ndaw topp xaaj bu mag bi noonu lañ daa boole seen seen jàng seen jàng xasida loolu loolu itteem moo ko indi moo ko moo ko moo ko moo ko dolli moo ko gën a leeral euh, alxuraan moom du ko mus ko doyal jàngal ko ci mbooloo mi mus ko doyal waxtu wu ne ci la nekkoon waxtu wu ne ñu koy santaane di di ko woote di ko santaane alxuraan ngir wattu ko itam daara daara daara loolu kenn mënu ko ci ëppite ndax ci la nekkoon ñi war a jàng xam ngi jàng ñi war a jàng xam-xam sañ seen diine ñi ngi jàng loolu du ko loolu lépp da ko dugaloon ci biir daaree tërbiye ji wala ko daaree tërbiye ji nga xam ne daaree tërbiye moom ni mu ni mu ko bëggee ba mu ci accès eh, ku ku jaar ci daaree tërbiye am fekk na nga nopp ci alxuraan wala fekk na itam nga nopp ci xam-xamu diine ba mën faa nekk di di di di jàngale dollandiku ci taalo bi ndax sëñ Saliou moom moom seexu seexu tarbiya dëgg la moom bu woon jikkoom moom seexu tarbiya la jikkoom waxuma la sax li jël ci sëñ Tuubaa waaye moom jikkoom dañ jikko yi seexu tarbiya loolu ci la nekkoon dañ ko ku ko xam ci loolu nga xam ba ñu ko noppee gis sëñ Saliou moom neexutu waxtaan <laughs> waaw kon nag ñii eh, xalaat yooyu nga am am bëgg koo fàttaliku du ko ñuy fàtt sax waaye nga bëgg ko fàttaliku di ko gën koo yeesal bëgg-bëggam ngoogu di jàng alxuraan loolu lu ci waay man rek kem kattanam muy mbooloo mu dul mbooloo lu ci waay moom kem kattanam rek na ca na bu dee mbooloo na ca def itte bu ma sëkk soñ ca ñëpp waaw bu dul mbooloo yi na ca nekk di ko di ko di ko di xamal di ko xamal benn benn bi ñun mooy suñu xaas mooy suñu xaas kon wax nañ ci góorgóorlu bu baax man nag alhamdulilah bi am naa ci taw fe sañ saa Saaliw ci mujj ji ah, ci at yi nag ma dafa dafa ma dafa naa koy jàngal Nuuru Daarayni eh, ma dégg ko ji jàll def na yëpp ma ko def bis bu ma def dara ma ko bi ma ko noppee gis maa ngi si waxtu bu ne maa ngi yeesal ndigal loola eh, di ko def ajjuma ju ne jàngal ko Nourou Daayni wax sax yoon nekku ci moom moo ko digaloon moom moom jëfe ci moom jëfe ndigal loolee mm-hmm. kon nag loolu moom gannaaw ba loolu lépp wéyee nag sëñ Saliou doy ci lépp doy na soññ ci lislaam doy na soññ ci sëriñ bi doy na soññ ci taalibe doy na soññ ci xam-xam nañ su ko lim mënu ma ci wax daal.